waaw euh, ñi ngi pare nii di voter euh, budget euh, at mi di ñëw bu ministère bi yore ndox mi ak mbirum assainissement budget bi nag li nga xam ne moom la ñu wax député yi mooy que ne pour ñu toujours njariñ bu mag la janoo ak ñoom parce que su fekkee ne da ngaa janoo ak ñi nga xam ne ñooy ndaw réew mi jóge ci département Sénégal bu nekk daf lay gën a ñaax gën laa jox pas-pas pour li nga xam ne moom la le président Macky Sall dégg ndax dañoo jàpp rek ne ñoom euh, laaj yi ñuy laaj euh, euh, soxla yi ñuy wax ak yenn saa yi sax ŋàññi yi ñuy ŋàññi suñu liggéey loolu yëpp dafa am solo pour ñun pour gën ñoo gën ñoo sawarloo ci li nga xam ne moom lañ ñu dénk donc noonu lañ ko jëlee te suñ fi paree li nga xam ne yëpp dégg nañ ko fii dana nekk loo xam ne lii danañu dimbali ci programme bu ñuy def pour mbirum population yi bi nga xamee ne def nañu waxtaan bi lu mat euh, euh, ñeen fukki député ak juróom-benn ñoo jël kaddu wax fi ñu rafetlu ñoom ñëpp seen kaddu ñeen fukk ak juróom-benn la ñu woon d'ailleurs commission euh, député yi jëloon kaddu commission yëpp nga xam ne joxuñu leen tontu ci commission bi ñoom ñëpp bind nañ leen lettre d'ailleurs bataaxal pour tontu seen laaj yi ñu doon laaj. bi nga xamee ne waxtaan bi def nañ ko ba pare ñun tamit ci yenn poñ yi jox nañ leen tontu yi leen ci war a jox ci bi ñu paree loolu voté nañu budget ministère bi. mu nekk téeméeri milliards ñaar fukk ak ñeent ci loo xam ne lii ci at mi di ñëw moom la ñuy dépensé waaye mu nekk tamit lu ñu lu ñu dencal lu ñu yéeneel ñu koy wax autorisation d' engagement mu nekk euh, juróomi téeméer ak ñeent fukk ak euh, juróom ci ay milliards yoo xam ne yi mooy autorisation d' engagement li ñuy yéene def ko ci ñetti at yi léegi nag ñoom laaj ñuy laaj ak soxla yi mi ngi doon ci li nga xam ne mooy actualité bi maanaam ndox mi nga xam ne manqué na fii ci yenn quartier dakaar yi ah, liñ ci mën a wax mooy lëmbeewul dakaar yëpp parce que ni ma ko waxee woon ci beneen jataay bu ñu toogoon sa téeméeri quartier yoo jël juróom fukki am nañu ndox 24 heures sur 24 mu am ci ay quartiers yoo xam ne yii ñoom lu ëpp 85 pour cent maanaam téeméer bu nekk juróom-ñett fukki ak juróom ñoom danañu am quartier danañu am ndox loo xam ne lii xëj na dana yegg juróom benni waxtu mu am ci nag fukk juróom yoo xam ne yi moo am ay jafe-jafe ci ñooñu mu am ci fanweer ak juróom benn yoo xam ne yi ndox mi dafa tar dëgg waaye loolu wax naa leen ne que ne usine Kër Momar Sarr euh, keroog bi may wax euh, ne liggéey bi commencé na 2018 2019 lay lay pare dama juumoon bi ma koy wax parce que liggéey bu mel noonu du ci benn at ñaari at la chantier bi mi nga waroon na pare ci fin wu waaye ak euh, situation coronavirus bi ñu amoon mu am ñu ko doon liggéey ñoo xam ne ñi dellu nañu seen dëkk am ay ingénieur sénégalais yu waroon a dem ci diir boobu euh, saytu ay liggéey yu doon def ci bitim réew balaa ñu koy indi foofu ñu mu tardé looloo tax dana dem ba ci ay weeru 2021 pour mu ñëw ci rural bi moom gis nañ ne euh, euh, Sénégal li mu am ci forage ñaari junni la ak téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ñaari junni ak téeméer ak ñaar fukk ak ñeent forage yooyu tey su may wax ak yéen juróom-ñeent fukk ak ñett ñoom ñoo ci paan kon boo xam nga ne lim bi gën a rëy ci forage mi ngi fonctionné waaye xam nga kenn du ñëw naan sama forage day fonctionné ñi nga xam ne seen forage fonctionné rek mooy moo tax nit ñi defee ne parce que ndox mi doxul fen mais euh, lii ëpp ci forage yi ñi ngi fonctionné waaye am na beneen jafe-jafe ci monde rural mooy réforme bi ñu indi woon indi ay opérateur am na ñoo xam ne ñi ngi koy ŋàññ surtout ci région de Thiès ak de Diourbel looloo tax président Macky Sall woon nañu xayma coppite boobu ñu ci indi woon coppite boobu nag suñ ko xaymaa ba pare ñu toog ak ñi nga xam ne ñëpp ñoo ci doon liggéey ñu seet ndax dañ koy continuer suñ koy continuer aussi ndax dañ koy jubbanti. wax nañ ko ci mais assainissement dafa am ñaari pàcc dafa am assainissement eaux usées maanaam mooy ndox mi nga xam ne mooy jóg ci gaanuwaayu kër yi di dem loolu fi nga xam ne moom lañ ko fekk yokk nañ ci fukki poñ ak ñaar maanaam biñ ko fekkee ci lu lu lu loo xam ne dafa ëpp tuuti juróom fukk bu nekk téeméer yokk nañ ko ba ba ci juróom-ñaar fukk. maanaam 62 pour cent la woon à peu ñoo amoon assainissement ci ci réew taax yi dem na léegi ba 75 ci ci jamono président Macky Sall ci assainissement rural aussi def nañ ci ay jéego loolu mooy assainissement ndox mi nga xam ne mooy jóge ci gaanuwaay beneen bi mooy assainissement li nga xam ne mooy ndoxu taw bi président Macky Sall bi mu ñëwee mois de septembre 2012 defoon na benn programme fukki at pour mbirum assainissement boobu wax nañ ne programme boobu def nañ ci lu juróomi téeméeri milliards yoo xam ne yi député yi ñoom bi ñu defee commission d'enquête commission d'information parlementaire ci seen rapport nit soo ko xoolee dana ci gis photo li nga xam ne liggéey nañ ko ci def nañ ci ay photo station de pompage def nañ ci ay photo rigole def nañ ci ay photo digue ñëpp danañ koo gis waaye mbirum assainissement ak leneen loo xam ne lii doomu aadama mi ngi koy liggéey du sotti mukk parce que lim bi limu nit ñi dañuy euh, yokk donc toujours yaa ngi def yeneen programme Kër Momar Sarr 3 tey ñu def 200000 mètres cubes bi ñuy am suñu indépendance 1960 soo ko defoon yàq la parce que soxla wu ñu woon ndox moomu waaye léegi am na solo danañu toog ba nga xam ne Sénégal danay def ay 400000 mètres cubes assainissement bi tamit noonu la léegi fi nga xam ne moo gënoon a tar parce que li ma bëgg a wax quand même soo seetee 2012 ak année yi koo jiitu su taw taw amaan am na quartier yoo xam ne yi ba taw bi di dellu si dañuy nekk ci biir ndox bi yéen ci seen bopp dégg ngeen fii ci assemblée nationale benn député mu ne bi biñ Kër Momar Sarr bi fa président demee biñ ci tegee weer ak ñaar fukki fan ndox mi fa nekkoon yëpp jëlee nañ ko fa. loolu nag jumtukaay yi ñu fa indi moom moo tax ndox mi jóge fa donc te am nañu programme bu ñu liggéey nii pour que inondation bañ fa amati mu programme mu 15 milliards boo xam ne bii appel d'offre bi lancé nañ ko jot nañu proposition entreprise yi te defe naa ne. feeg le 15 janvier incha allah danañu lancer travaux yi foofu. Euh, juróom-ñetti fan ci mois de décembre lance lancé wu ma Kër Momar Sarr damay dem pour saytu liggéey bi fan la toll parce que jàpp nañ ne juróom-ñetti juróom-ñetti fan ci mois de décembre danañu mën a commencer essayer essai usine bi maanaam di di di di di essayer di nettoyer usine bi di nettoyer tuyaux pour mu dem.